L'eau multimédia moo leen di may émission assalafou ma al Qur'an. Nous sommes l'eau multimédia. L'eau multimédia. 27 avenue Émile Badiane angle Paul Hall Dakar. L'eau multimédia spécialiste la ci informatique bureautique divers matériel réseau ak yeneen i accessoires ci ay njëkk yu xarañ.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 ñu dello si ci suñu jotaay a asalafu ma alquran nu koy amee fii ci la maison du Coran au Sénégal muy baytul quran al karim fi Sénégal ci njiital sunu mbokkum daara Cheikh Abdoul Aziz Camara waaye di jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak ñun dinu gunge ci jotaay bi di ko wettali ba seenu ndimbal di ci dugg ba fu ngeen mënti nekk ci aduna bi di ko jot muy loo multimédia ñuy jaay bépp jumtukaay boo xam dafa jëm ci wane kon yaakaar naa di ngeen gis numéro yi ci suuf ku jëflante ak ñoom di nga am mbégte lool te yaa ngi jëflante ak ñooñ alquran al karim ñu wey fanu yemoon di nettali jotaay yooyu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amaloon na ko ak sahaaba yi di leen nettali jëmm ju tedd joojee di Uways al Qarani yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam waxoon Omar ibn al-Khattab ak Ali ibn Abi Talib ne leen saa yu yàlla dogalee ngeen gis ko dem leen ci moom ngeen sàkku ci moom mu jéggaleen jéggalu leen yàlla Uways al ku mu mos a jéggalul yàlla rek yàlla baal na la say bàkkaar yëpp nga duggoo aljanna fa makatha yatlubaanihi ki nga xam ne mooy omar ibn alxataab ak ali ibn abi talib ñoom ñu daal di toog fukki atu yàlla di wër ki nga xamante ne moom mooy Uways ibn al-Qarani saa yi ñu demee xaji mag di ko wër ci bërëb bu nekk saa yi ñu gisee ay nit ñu jóge yaman ñuy laajte ki nga xam ne mooy Uways ibn al-Qarani at mu nekk ñu laajte ko ñu ne leen Uways ak seegul Uways ak seegul ba ci mujjug at bi nga xamante ne moom la Omar ibn al-Khattab dem xaji mag bi nga xamante ne wax dëgg fi yàlla boobu Omar jëm na mag ca kaw taxaw ci montagne boobee nga xamante ne moom mooy Abi Qubays mooy montagne boobee nga xam ne moom lañ tuddee jabalu Abi Qubays foofee ca Makka Omar ibnu Xataab daal di yuuxu ca kaw fa naada bi ala sawti mu daal di yuuxu ci baatam bi gën a kawe mu yuuxu ca kaw mu ne yaa ahla alxajiji min min ahli lyaman yéen yi nga xam ne yéen a ñëw aj si Makka ana ñi nga xamante ne ñoom ñoo jugee yemen afiikum uwaysu min muraad ndax uways ki nga xam ne uwaysu nil qarani mu ngi ci yéen te mu jógee ca muraad maanaam ca yemen mu bokk ci ngiiru muraad fa qaama cheikhun kabir am benn mag màggat bu daal di jóg taxaw tawilul lixya si kimba daal di gudd lool fa qaala mu ne mu daal di tontu Omar ibnu Xataab mu ne ko inna la nadri ma uways ñun de xamuñu kenn moy uways wala ban uways nga namm ci sawa laaj gi walakin ibnu axin lii waaye am na koo xamante ne maag baayam ñoo bokk benn baay sama doomu rakk la wala sama doomu mag yuqaalu lahu uways uwaysu de lañ koy wax maanaam uways la tudd waaye moom de axmalu dikra maanaam inconnu la <laughs> inconnu la du star du ku ñu xam comme Sénégal fii mu toll tey jii nii waxoon naa ko keroog bëgg bës bëgg ñu xam la tax na nit a ngi def lu nekk déglu leen fii nitu yàlla bii ñu bëgg a xamle mu ne dikra moom kenn xamu ko wa aqallu maala te moo gën a tuuti alal maanaam amul xaalis amul dara lu muy ndékkee sax da koy të lu muy añee daf koy të wa ahwanu amra te moo gën a doyo di ay mbir ci ñun laa ilaha illallah xoolal ba ci biir kër yi léeg amul xaalis moo tax waaja àggoon ci mu ne ma Cheikh Amar aduna de ko amul xaalis ñëw da ngaa seetaan si bokkoo supporter nga kon nga xam ne aduna su demee ba toll fii ñu ne ku amul xaalis supporter nga wala iyadu billah mu wa ahwanu amra te moom moo gën a doya di mbir min an narfaahu ilayk ci yow ñu koy yëkkati di la ko présenté yow amirul muminin yow président bi nga xam ne yaa jiite adduna gi yow mi jiite jullit ñi yow Omar ibn Khattab uwaysu mi ma xam de muy sama mbokk rus naa koo andi sa kanam la ilaha illa allah wa innahu la yara ibilana moom de moom mooy sàmm sunu gëlleem yi xaqirun bayna adhurina ku xeebu la sunu biir fa amma alayhi omar omar daal di koy jëllale maanaam bi mu waxee li Omar bëggu tax yuuxu ne kooku laay wër ci biir mbooloo mi mu mel ni ku ko jëllale bàyyi mu sedd ka annahu laa yuridu mel ni du moom sax la yow lay wër après Omar daal di ñëw ne ko ayna bnu axiika haada abi haramina huwa mu ne ko ana sa doomu mbokk boobu ndax moom mu ngi fi qaala naam góor gi ne ko waaw mu ngi fi Omar wa ayna yusaab Omar ne ko fu ñu koy fekk qaala bi araaki arafat mu ne ko soo demee ca li wër a arafat montagne yu arafat di nga ko fa fekk Omar fa rakiba Omarun wa Ali Omar ak Aliyu daal di war départ siraan ila arafatin ñu daal di jubali arafat fa ida huwa qaimun yusalli jëma ja nga xam ne moom la leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon muy Uways Omar ak Ali ba ñu demee ba jub fa gëlëm ya nekk ñu fekk benn jëmm mu ngi taxaw jàkkaarloog benn garab maanaam ca penku ba mu nekk di julli wal ibilu hawlahu taraa ñu gis ne gëlëm yaa ngi ko wër nekk di lekk fa shadda himaarayhima fa shadda himaarayhima laa ilaha omar amirul muminin buuru jullit ñi omar taani xalifa linnabi ñaareelu jëmm ji wuutu yonent yàlla muhammad omar mi yonent bi waxoon ci waa aljanna bokk omar mi nga xam ne su awoon ci ab mbedd cheytaani du aw ñeen fukki atu yàlla omar moomee mbaam la ali ibn abi talib mbaam la war fa shadda ximaarayhima lu nekk rek taxawaay bu ci nekk ku nekk na ci jële jàngat ku jàppane pour ñu xam ne am nga xam-xam wala ab sëriñ nga faw nga war a oto bu mag ndax nga sa bopp yéen a ngi dajeeg ay walli yu yàlla ci mbedd yi yéen a ngi dajeeg ay walli yu yàlla ci marché yi yéen a ngi dajeeg ay walli yu yàlla ci jàkk yi nga xam ne da ngay moom nga ne yëri yu tilim la sol nga sànni ko ne ko demal ca sappe ba ca ginnaaw yéen a ngi dajeeg walli yàlla yi ci xew yi su ñu xeebee sax kenn du leen sa servir ngir lan da nga leen a xool ci lañu ñu sol gis nga koo mën a dajal muy nit ku feebar maanaam nit ku wéradi seetlul ñaar yi soo ko gisee ay awraam feeñul maanaam sol na lu jot soo ko gisee mu sol lu jot te gisoo ko muy dox di saaga soo soo ko mënee defal njëkk teraanga defal ko ko soo ko mënul romb ko nga dem ma wa awat foo fekk nit ku am feebaru bopp maanaam dof ngeen baal ma ci kàddu gi mooy ñi nekk ci mbedd mi dañoo feebar koo ci gis seetlul ñaar yi su solee lu jot ak lu mu tilim tilim sol na lu jot awraam feeñul gisoo ko muy dox di saaga di wax lu ñaaw soo ko mënee teral teral ko soo ko mënul romb ko nga dem wali yu yàlla yi bari na ci ñoom ñoo xam ne yëru yooyu la ñuy sol su ma leen ko waxee xam naa ko ndax Cheikh Omarul Fuuti yu mooy sama turandoo kenn du sama turandoo mooy sama turandoo Cheikh Omarul Fuuti yu taal mooy sama turandoo waaw te ñi ko mos a teg bët ci mi yëpp li ma wax xam nañu ko ñi ko xam yëpp li ma wax ne xam nañu ko ci as salaf ma alquran la ñu nekk kon loolu ñu baaxee leen ko ndax bari na ñoo xam ne dañuy alku da ngay dajeeg nit nga daal di koy ciibatu wala tufli ko wala bumax ko wala toroxal ko wala ko wax ko benn kaddu kaddu googee alku nga àdduna ak àllaaxira da ngay alku ba alagaale ñi nga am fa shadda ximaarayhima omar ibnu xataab ak ali ibni abi talib daa di rëppatal li nga xam ne moom mooy seen mbaam yi wuutale jëmm jooje nga xam ne moom la leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon bi ñu demee ba ci moom fekk moom muy julli ñu ne ko assalaamu alayka wa rahmatullah assalaamu alayka wa rahmatullah fa xafafa uwaysu ni sala uways daal di woyofal julli ga daal di gaawantu tuuti mu ne leen assalaamu alaykuma wa rahmatullahi wa barakatuh mu daal di leen fay nuyoo qaala ñu ne ko mani rajul yow la kan qaala raay ibil wa ajiru qawm raay ibilin wa ajiru qawmin mu ne leen man de sàmmkatu gëléem la te man de employé ay nit laa ñoo xam ne dañ maa jël di ma liggéeyloo gëléem yi suñu pare ñoom ñu fay ma ñu ne ko las naa nasaluka an riaya wala an il ijara laa juñu la sa métier mii waaye laa juñu la lañ lay fay dañu ne ko masmuk noo tudd mu ne leen abdullah man abdullah laa tudd qaala ñu ne ko qad alimna anna ahla samawati wal ardi kulluhum abidullah ñun de xam nañu ne ñi dëkke asamaan ak ñi dëkke suuf kulluhum ñoom ñëpp de ay jaamu yàlla lanu xoolal nit ki fa mu toll ak daraja bi mu am ba nga xam ne lu mu ñaan yàlla def ko ku mu jéggalul yàlla jéggal la ñu ne ko noo du mu jaamu yàlla rek laa mais xoolal rëy rëylu gii modeste waxoon naa leen ni atawaddu zinatu ahlil ilm wàccee sa bopp mooy taarug borom xam-xam koo gis muy rëy rëylu dara nekkul ca bopp ba dara fanaanul ca bopp waaw rëy yëre rek ak lijanti oto ak fu nu mu ko mën a amee baax na waaw nga laaj ko kiyam soo ko ne sëñ bi kan CV la lay jox di la taril wala mu ànd ak ku koy présenté <laughs> gars yi dañuy ànd ak ku leen di présenté léegi kon mbokk yi foofu la ñu yem ku bëgg xam la uway si tontuwaat ak la dox seen diggante topp ñu ci jotaay bii di ñëw ma kaana min sawabin fa min arrahmani wa ma kaana min xatain fa min nuqsaani salla al ilahu ala annabiyi ma labba mulabbin aw tahallala muhrimu assalaamu wa rahmatullahi L'eau multimédia moo leen di may émission assalafou ma al Qur'an. Nous sommes l'eau multimédia. L'eau multimédia. 27 avenue Émile Badiane angle Paul Hall Dakar. L'eau multimédia spécialiste la ci informatique bureautique divers matériel réseau ak yeneen i ci ay njëkk yu xarañ.